waaw jërëjëf Lamine ñu ngi lay jaar di nuyu di nuyu suñu promotionnaire euh, Fadam 2 Fadam 2 di rafetlu li fi xew tey parce que tey vraiment làmb ji moo toll noonu moo laaj réunion bu toll nii gars yi réunion xëy na le président dina dina ci indi yu bari yoo xam ne jot nañ ko jot nañ ko wax ci nan la ñu war a xewalee nan la ñu war a ñëwee ci bis bi nga xam ne mooy bisu Modou Lo Ama Baldé ah. mais li may lancé rek làmb ji ne am na lamb la rek dañuy bëri dimanche lundi gars yi xëy commentaire dem liggéey dañ ko yemale ci cadre sport te di wax nag am na ñaari mbër yoo xam ne dañuy toog quatre ans voire cinq ans bëriwul ku leen bëgg a dimbali dañ leen di bàyyi ñu exercer seen métier def seen liggéey mais ay nit ñaari sénégalais yoo xam ne dañ leen fay des de millions li ñu soxla ci ñoom mooy ñëw ñu produire spectacle ñëw bëri si ñëw wane li ñu mën képp koo xam ne wóolu nga ci sa mbër dana war a jàppale sa mbër dugg ci géew géew bi ñoom ñaar rek ci dugg may wax supporters yi ak toppe nañu xam ni force de défense et de sécurité lii ma gis disposition yi ñu disposition yi ñu jël képp koo xam ne bëgg nga ci jàmm boo ñëwee ci làmb ji di nga ànd ak yar ak teggin Ama Baldé ak Modou Lo seeni liggéey lañu def bu leen kenn yàqal seen liggéey tey jii koo fekk atelier bu xëy di liggéey nga ñëw dafa indi bokaat dana wax ak yow wala da tooñ nga ko koo fekk école ba tey jii nga ñëw biir école yàq ko wala nga def dara yàqal nga ko liggéey te Ama Baldé muy Modou Lô lii mooy seen métier cinq ans moo leen di jox dépense kenn dafa leen di jox dépense te bu nañu fàtte ni Modou Lô bu paree dafa war a bëri ak euh, Boy am Ama Baldé dafa war a bëri Gris Bordeaux ngir yàlla war a suuli képp koo xam ne ñi nga xam ne ñoo ciy toppe yi di wax di xabtalu kenn terewu leen bëri nañu takk seen ngem boo dëkkee Pikine wala nga dëkk parcelle boo amee fit li ngay woote mu dëgg ci yow utal licence licence yaa ngi nii nga ñëw futteeku bëreeg ñoom pokola bëreeg ñoom booy nekk parcelle nga bëreeg mais mënoo di topp mbër bu làmb ñëwee nga taxaw naa làmb ji du am wala buñ taxaw ci kaw nga sànni loolu soxor la ak yàq ñu ngi ciy lance Sénégal te ñun nag du duñu ay duñu ay duñu ay jaay dañu war dañu war a dañu war a correct parce que spectacle bu mel ni Modou Lo Ama Baldé nit ñi di ko xaar pendant juróomi at ñeenti at nit ñi di ci di tiital nit ñi ah di tiital nit ñi loolu jaadul te lamb ji jàmm rek moo ci am mm-hmm. képp koo xam ne jóge nga parcelle utal nañ la itinéraire boo xam ne les forces de défense et de sécurité danañ la jël encadré leen weñ du leen laal lenn du leen laal oto yi danañ leen encadré bu ñu dugg taw tur bi nga xam ne moo see côté parcelle mm-hmm. bu ñu seetaanee làmb ji ba pare danañ leen escorté di demande ñibbi ba Parcelles Assainies di ngi woo waa Parcelles Assainies yëpp ñu génn di waxit waa Pikine ñun Pikine lañ nekkoon hmm. Pikine fa la ñu fa la ñu fa la ñu jàngee bëri par exemple waaw donc ñun tey jii suñu fa demee ba ba ba ñëw créer Rock Énergie donc benn famille la nañu nañu nañu apaiser nit ñi xam ne bis rëy lañ jëm Modou Lo nag li ma ciy wax mooy euh, gaynde si bi la bu ma hmm. waxee loolu ci defar ci làmb ba pare hmm. dama leen wax ni xupp dàq dégguma mane ne Modou Lo gaynde sibi la xëpp saamaan ëpp na loxo saay laa la boo xam ne waaw du ñàkk ci nekk ñëpp du ci ñàkk mën naa naar yaa ngi du ñu tee Modou ñëw bëri si du ñu tee ñu indi ko bëri si ñoo ngi nii tey ñëw nañu réunion si bu bu bés baa dinañ ñëw bëri si kon le 5 xaaral ma dina ko ba. non du ko dem du demee noonu na ma daan demee. ah non non du demee na ma daan demee fu teeku mais xale yi loolu yëpp ci xale yi la mais dama bëgg wax rek ni. mais mais di nga jiitu moo la sa ginnaaw. non danañ leen encadré parce que président CNG loolu lañ ñaan euh, commandant corps urbain yi loolu lañ ñaan commissaire yi loolu lañ ñaan mooy ni ñu defaree tey ba fexe ba Parcelles Assainies ñu am. mën a def euh, open press bi ci stade parce que ñu ko waroon def ACATAS lépp ci waxtaan la. ok loolu lañ koy defee ci stade bi mu ëpp organisation te loolu dañ koo waxtaanee moo tax nag lii nag waxtaan la ñaari mbëri rek la concerne bëri bi ñaari mbëri rek la concerne. concerné wul entraîneur concerné wul mag concerné wul toppe ñoom ñaar ñuy dugg ci géew bi te bu ñemantee dinañ bëri. laay laay laay donc nag nañu nañu nañu nañu apaiser bàyyi leen ñoom ñaar entraîné nañ quatre ans ku ci wóolu sa bopp. nga ñàkk wóolu sa bopp nga ñàkk pare di nga bëri. dégguma non dama dama damay synthétiser rek. waa mais nag xaarim nga jege nag. non xam nga xam nga Fadam de lu ma bëgg loo. non non mais xaarim li suñu problème mooy Sénégal gépp kenn mënu laa gën a xam Modou Lo. war a jàkkaarloog Ama Baldé la 5 fii. fii ci arène nationale ban Modou Lo moo nar a jàkkaarloog Ama Baldé. xam nga Modou xam nga Modou dafa bëri ak Balla Gaye deux dëgg la. Balla Gaye ñëw ñaari yoon parcelle te dañoo bëree waa géejawaay ñibbi ci jàmm mu bëri Eumeu Sène deux fois ñu fekk suñu Parcelles Assainies te bu mu jeexee dañoo ñibbi ci jàmm ñu bëri Gris Bordeaux deux fois ci même stade bi mu jeexee dañoo ñibbi ci jàmm ñu bëri Lac de Guiers deux fois ci même stade bi mu jeexee dañoo ñibbi ci jàmm kon xam nga ñun ferme lay nañ dëgg la ñun xam nañ ne loi du sport mais mais bul fàtte ne nga jëkk roi nga yëpp Pikine ku ko jëlee woon ñu ko bañuñu ko parce que Modou Lo sport de combat mooy lamb ji tay ji bu ñewon jeex ci ay ay ay ay négociation du ñu neex parce que loolu lañ ko sas boy entraîner pour sa yaram dëgër boy entraîner c'est que pour subir des chocs la pour subir des chocs la lutte c'est l'intelligence en mouvement pour nga xamni bu la waa ji nga mën ko dëkk bu la sondee nga mën ko dëkk loolu mooy lamb ji donc nag maa ngi wo waa Pikine ñu xam ni lamb ji fair play la di wax waa Parcelles nañu ñëw ñoom ñëpp mobiliser mercredi ñëw ci open presse bi dimanche ñëw gunge Modou Lo mu duma mu bëreeg Ama Baldé jël ndam ñu yóbbu parcelle ñaari mbir laa lay wax. ah. ñaari mbir laa lay wax dama la bëgg a wax. ñëwal Modou Lo li ma la wax sànq rek. waaw nee naa la gaynde sibi ko. waaw saamaan la. waaw ëpp na loxo saa yi. mën nga koo xeeb nag. waaye boo ne duggee ci géew bi di nga xam ne mbër la te ala kulli aal lu waay di def na nga noppalu. xaaral nga jege Sénégal yëpp dinañ Ama Baldé day dox ci kaw Modou Lo. waaw Ama Baldé mën nam rek la am bu arbitre sifflé la mu la mu préparé la mu waaj na ko def. mais dama dikk micro Modou Lo mag la mi sekk bi mu ne du arrière Ama Baldé. waaw loolu yëpp ci stratégie lamb la rek. <laughs> xarit yaa ngi ko de. ñoom li may wax rek mooy ñaanal Sénégal jàmm. xaadim nga njëkk a. li may wax ñaanal ñaari xale yi jàmm. waaw. <laughs> danañ ko waxaat ñaanal ñaari xale yi jàmm. waaw ñaanal Sénégal jàmm ñaanal ñaari écurie yi jàmm parce que li ci jàmm rek la xaj. waaw di ñaanal euh, comme li ñu wax rek président Sène jàppale Ama Baldé à 100 pour cent bu ko defee côté fees dell ñi dëkk gi Parcelles euh, aussi on nañu mën a jàppale loolu man comme ni may wax rek may lancer autorité ak bonne volonté parce que billet cher na mais bis bee toll noonu parce que combat bi boo ko tëggee quatre ans cinquante dépasse il faut que autorité yi jàpp ñu ngi wo ku mel le premier ministre Amadou Ba parce que nag suñu mak la suñu xarit la suñu àndandoo la suñu mentor la mu jàppale Parcelles Assainies ci mobilisation di woo itam yeneen autorités yëpp nañu jàppale parcelle waa parcelle ci mobilisation bi. di lancé appel tam autorités yi nga xam te ni dañ nekk Pikine ñu jàppale Ama Baldé ci mobilisation bi bu ñu ñëwee mu doon fekk ñoom ñaar ñu langal leen ci digg géew bi ñu bëre Modou Lo bëre duma daan loolu la ñuy ñaan yàlla.